li ñu indi fii tey mooy dañu gis ne feer bi duggee Sénégal ak léegi si ñaari fan ci weeru mars ñun ñeenteeli fan ci weeru mars lañ jógoon ci ndigalu président xam ne li dugg ci àdduna bi li taal daay gi ci réew mi dina dugg suñu réew ñaan nañ ba sonn nag yàlla mooy dogal dem ci école yi dem ci daara yi dem ci poste santé yi dem ci marché yi waaye loolu bu ko yaafus defee day defe ne matal na te suñu kilifa ku ne xam na ne muy Macky Sall Ligue Afrique ñu bëri tële da ko réussir tey li ñu dajalewaat fii mooy jël lu mel ne gel lu mel ne thermoflash lu mel ne masque lu mel ne saabu lu mel ne ay bërigo boo xoolee bërigo yële juróom fukki bërigo yu ñaar téeméeri litre ak juróom fukk andi nañ fi tamit ñaar téeméeri thermoflash lii ñaari téeméer

am gan goo xam ne wala ku ñëw ci kër gi nga wala ci garage bi nga xool lu mel. loolu tax nag séddale bi ñu bëgg def dañ ko delloo si nag teg ko ci loxo jeunes yi nga xam ne comité de gestion bi ñu créé ñoom lañ ko jébbalaat jumaa ju ne ci dëkk bi incha allah daañu fa teg bërigo daañu fa teg thermoflash daañu fa teg zel ak lépp la fa war a marché yëpp tamit daañu fa teg loolu marché yi nag dama yokk thermoflash yi parce que moo ëpp nit garage yu mag yi muy 52 ak yooyu. Garas bu ne dina am 3 yi dafa am solo lolou buñ ko nak? nak kiñ ci accompagne moy le commissaire kiñ ci accompagne moy groupe yi nga xamni ci quartier yi nañu jaxay jóg bokku ndey bokku bay parce que bu ñu duggee suñu dëkk nañu xam luñu ëndalé kuy dugg nañu xam lo gënalé feer bu télé dugg ñu xam la day diñ mo gëna a bu ngeen gisé bañu déparé ma téla wax né nañu fat yeen yeen quartier yi li la doon bañ mais nag xoddiku ci ba nga lakkagul jógaat gën na nañoo jógaat kon gaara si laay gën a ñaax marché yi tamit fu ngeen fi gis gan gu fi dëkkul di fi jaay see na ngeen ko signalé ñu génne ko mu jëm fa mu wareem ñuy ñaan nag képp ku yeewoo di doomu jaxaay te dëkk bi ñor la ak képp koo xam ne yaa ngi ci gouvernement Sénégal yàlla may la ndombal tànk yàlla may la wërsëg na nga jël sa loxo jàppale président mais nga jàppale askan wi